لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëgal gim ñu wërsëgal ñu nekk ci chehru ramadan nekkit ca la nga xam ne mooy mujj ga incha allah ñu ngi nekkoon ak yéen ci suratul maida war a jël ak yéen incha allah la nga xam ne mën naa mooy suñu bind bu mujj ci saar woowu ñu ngi war a dal ci aaya 104 bi aaya 104 wa ida qiila lahum taalu ila ma anzala allah dafa mel ni nag suñu jàngkat yi tey dañu am jafe-jafe waaw fii ne wa ida qiila lahum taalaw ila ma anzala allah ñii di yéeféri day bu ñu leen waxee kaay leen ñu jëm ci li yàlla wàcce wa ila rasul kaay leen ñu jëm ca yonente ba it atte ñu qaalu xasbuna ma wajadna alayhi abaana ñu ne déedéet ñun day doy nañu la nga xam ne fekkoon nañ ca suñuy baay awalaw kaana abaauhum a doonte na ñoom seeni baay sax day laa yaalamuuna shay'an wala yahtaduun ñoom day xamuñu woon dara nekkuñu woon it ñoo xam ne ñuy jub lañu yaa ayuha alladina aamanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm alaykum anfusakum ñi ngi leen di dénk ngeen sàmm seen bakkan laa yadurrukum man dalla ida htadaytum du leen lor kenn ku réer su dee ne yéen nekk ngeen ñu jub ila allahi marji'ukum jamia ci yàlla day mooy seen delluwaay yéen ñépp fa yunabbiukum bi ma kuntum taamaluun mu xabaara leen ca la ngeen nekkoon di ko def yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm shahaadatu baynikum lay seede ci seen diggante ida xadara ahadakumul mawt bu dee dafa teewe kenn ci yéen dee xiinal wasiya jamono bi muy def dénkaane isnaani min isnaani zawa adlin minkum na doon ñaar ñu am maanduti ci yéen julit ñi aw axaraani min gayrikum wala yeneen ñaar yu bokkul ci yéen jurit ñi in antum darabtum fil ard su dee da ngeen nekk ci tukki fa asaabatkum musibatul mawt mu dal leen lii di musibam dee taxbisuunahuma na ngeen leen fekk min baadi salaa gannaaw bañ jullee ba pare fa yuqsimaani billah ñu waatal leen ci yàlla inir tabatum su dee am ngeen sikk sàkk ci seeni mbir la nashtari bihi samana ne sunu lii ñuy seede day duñ ko jënde mukk ak njëkk walaw kaana za qurba doonte ne dañuy jeng di jëm ci kenn koo xam ne jegeñaale la wala taktu wala naktumu shahadat allah te duñu nëbb mukk seedeg yàlla gi inna idan la min al asimin kon de ñun daañ bokk ca ca ñu nga xam ni ñooy defkatu bakkaar ya mi ngi noonu mbokk da ngay gis ne suñu boroom bu ñuy saxal ci téeréem bi tontu yi nga xam ne yéeféer yi dañu ko doon tontu mi ngi ñu ci junj ci ngalawaay yéen julit bu leen dem ba jaar foofu mukk mbokk julit heure boo xamee ni nii ñi ngi koy woo ci loo xam ne ndigali yàlla la wala ndigali yonent yàlla la lam war a xool mooy ndax maa nga ca wala nekkuma ca am maa nag wëlbatiku di layee lii de daa safaanoog la ma fekkoon samay bàyyi loolu moom mooy la yéeféer yi doon tontu ca ngalawaay xamal ne yaag say bàyyi yéemu leen masalan tey jii li ñuy tuddee ay bidaa bari na jullit ñu bari ñoo xame ne nii ñi ngi doon jëfee bidaa ca xamuñu ko même ñiy woote ci sunna sax mën na am bidaa bu ñu nekk xamuñu ko looloo tax ñuy continuer di jàng ba baa ñu dajeeg seen borom na am sa bàyyi mi ngi woon ci mbir moo xam ne xamu ko woon ci diini imma ndigal la bu yàlla dig la ñu def ko xamu ko wala lum doon def la ca amu ci woon tegtal ne lii kat ay bidaa la ku mel noonu yàlla subhanahu wa taala du ko ko toppee yàlla du teg bakkan lu dul lum man amma yow mi dem nag ba dajeek koo xam ne tegtal na la lay yu leer ne le lii kat ci diine yàlla ji la bokk lii ngay jëfe kat dafa safaanoog sunna yonent bi alayhi salaam ku mel noonu dañ naan ay lay tege na ci kawam su ko defee ki ay lay tege ci kawam ay man uqimat alayhi alhujja du yem ak ay layam tegul ci kawam loolu moo tax ba lii xel mooy lii de sama baay daawu ko jëfee waaye ndekete ci yàlla la jógee yow da nga koy commencé di jëfe te ñaan yàlla jéggal sa baay yéen ñaar ñëpp man ngeen yeewoo jéggal girmaande lii kat sama baay ca la nekkoon jàppoon na ne lii dara newu ci ngi noonu jàppoon na ne lii dara newu ci waaye dem naa man ba am ay lay yu leer ci ne lii kat daa safaanoo ak na yonent bi gise woon su boobaa na la yàlla di toppe du ko toppe sa baay da ngay wëlbatiku jëfe la yàlla bëgg ba pare ñaan yàlla mu jéggal sa baay sa baay tànk nekkul woon ku dee ci shirk shirk bu ko génne ci diine rek lu mu mënoon a nekk dagan na nga ñaanal ko te boo ko ñaanalee yàlla mën leen boole yéen ñaar ñëpp njéggal yërmaande loolee kon la jullit di war a bàyyi xel fu mu mën a toll suñu borom bàyyi loolu daal di ne ay yéen nit ñi képp kenn ci yéen na toppatoo boppam keneen ka nga xam ne dafa réer du ko mën a lor su dee ne yéen jub ngeen. na am aay bi noo koy déggee mooy li tubaab yi di wax chacun pour soi Dieu pour tous ku nekk ni lijjanti boppam waaye aay bi kenn du ko déggee noonu mbokk aay bi nañ koy déggee mooy daa bokk ci lijjanti sa bopp ngay diglu lu baax di teru lu bon daa bokk ci njub ngay diglu lu baax di teru lu bon abubakarin sadiq yéeg na ca kaw minbaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ay yéen nit ñi bu mu leen nax aaya ba ngeen di jàng ca maida suñu borom naan nit ñi ku nekk ci yéen na toppatoo boppam ki riir du leen lor maa ngi leen di seedal ne yonent bi alayhi salaam day nee na nit ñi bu ñu gisee mbon ci seen biir ñépp téye ci seen làmmiñ bu mbugal may ñëw ñoom ñépp la ko yàlla di boole loole kon ku ne da cee war a bàyyi xel rawatina nag ñi sës ci yow suñu borom dani fegal leen seen bopp fegal seen jabar sawara góor gi nga xam ne cinq heures du matin mu yeewu di jullee lu kenn xamul dem jàkka ja ah def farataam njaboot yépp di nelaw mu ne ah man daal yéen a xam man sama bopp moom toppatoo naa ko déedéet fokk ko nga def sa waru gar ci njaboot gi dooga doon ko jub fokk nga def sa waru gar ci société bi dooga doon ko jub amma nag boo defee sa waru gar digle nga lu baax tere lu bon yàlla nattoo la doom ju bon dem nekk yéeféer amatoo benn problème sa baay bi la jur fettirlu dem nekk yéeféer du la lor ci dara looli fekk yow def nga sa waru gar ba pare borom bi nag ne xam leen ne yéen ñëpp ci yàlla ngeen di dellu ku nekk mu xabaare la la nga doon jëf ci kaw suuf aaya bi day méngoog aaya bi mujj wàcc ci alquran te nekk suratul baqara wattaqu yowman turjauna fihi ila allah mbokk ku nekk ci ñun dafay xam ne yaa ngi xëy di gont di tukki di nelaw di ila axiri waaye sa mbir na muy mujjee mooy bis dana ma sa ñëw nga faatu am foo tëdd muy sa bàmmeel bis dana ma sa ñëw ñi yee la ca bàmmeel boobee taxawal la sa kanamu boroom lépp loo xam ni doon nga ko def ci kaw suuf ñu daldi la koy fàttali leeralal la ko lu nekk lam ya yoo ci fay ñu fay la ko su dee na say jëf yu baax ëpp na sa yu bon su boobaa texe nga ba faw su dee ne jëf yu bon yaa ëpp nga texee di ba faw loolee ku ne war ci bàyyi xel suñu boroom bàyyi loolu daldi ñuy indil ay tegtal ca mooy yéen jullit ñi su dee ne da ngeen a dem yàlla dogal ci yéen dee dëkkal leen dem nga ca place boo xam ne yaakaaroo sa bopp ne man mii kat mën nam danaa faatu suñu borom mu ne day leen def testament testament muy ndénkaane ngeen di ko dénk ñaar ñu maandu ci yéen ca xamal leen ni kat su ma dee day alal sangam alal sangam diw moo ko moom yoral naa bor diw sama alal ji nañ ci jël joxal ma diw yóbbul ma ci place diw loole da ngay gis ne mbokk suñu borom yàlla lu mu sopp la lu mu ñaaxaate la rawatina bu dee da ngaa yor ay responsabilité ak aqi jàmbur yonente bi alayhi salaam mu ne bu bu mu la romb mukk ñetti fan yoo xam ne bindoo wala xamle woo sa testament amma bu dee da ngaa bokk ci ñuy bind mën nga koo bind denc foo xam ne bu la wóoree ne boo dee nit ñi dañ ko gis même bu doon lu ñuy enregistré mën nga ko enregistré foo xam ne wóor na la boo dee nit ñi gis ko waaye comme la ëppoon ca ñu jëkk ak ñu mujj sax bind ak yooyu yomb leen moo taxoon suñu borom ne utal ñaar ñu la seedeel say ndinkaane pour boo fi jógee. borom bi nag ne bu dee da nga ñu nekk ci tukki léeg-léeg man ngaa bañ a gis jullit boo seedaloo su boobaa utal ñaari yéeféer ñu bokkul ci yéen seedaloo leen waaye bala ngeen leen a seedaloo it nañu leen fekk ñu waatal leen ci yàlla ne lii nga leen dénki day duñu doon mukk koo xam ne nii ku koy jalgati la wala di ci parparloo ak kooku ah nu mu leen jege jege suñu borom yàlla subhanahu wa taala loolu mu wax ci ne nañu waat ci yàlla loolu it mu lay jàngal mbokk julit du waat lu dul ci yàlla du waat loo keneen lu dul ci yàlla loolu mooy mbir bi moo tax suñu borom ne wax leen ñu waat ci yàlla doonte ne ne mbokk xam ngeen li ñu yàlla nattoo ci suñu société bari na ci nit ñi bay wax ak ñoom ba ne billahi dañu jàpp da ngay fo wallahi dañu jàpp dañuy fo amma nag boo nee barke cheikh diw su boobaa ñu jàpp ne wax nga dëgg loolee mbokku feebar la boo xam ne daf ñoo dal borom bi nañ ne ñooñu day nee nañu ñooñu day nañu wax ne suñu nëbbee seede gi ñun ay def ko te bàkkaar la mbokk loolu muy wasiya wasiya boobu nga xam ne soo ko xësee ba bind soo ko xisee ba dénkaane sa lay moom ci yàlla wàcc na ña nga xam ne ñoom nga koy jox lu ñu ca changé ñoom ñooy gàdd bakkaar ba luñ ca deful ñooy gàdd bakkaar ba lii mooy la nga xam ne jullit bu nekk war na ci bàyyi xel bind ko wala wax ko ay nit taxuta de lépp loo ca wax bis bu la neexee it mën nga ko changé loolu mooy aji ca wàllu googee suñu borom yàlla subhanahu wa taala di ñuy defal ay tegtal mi ngi noonu jalla wa ala bokk kon suñu borom day wax ci aay yi nga xam ne moom la ñuy mujj a jàng nii wa in fa in usira su dee ne nag feeñal nañ annahuma istahaqa isma ne ñoom day yeyoo nañu la nga xam ne mooy bakkaar fa aaxaraani yaqumaani maqaamahuma nañ jël yeneen ñaar yoo xam ne ñooy taxaw ci seen place min allazina staxaqa alayhim al awlayaan ca ñaar ña nga xam ne yey na ci ñoom la nga xam ne mooy ak péetewoo ñeel kalfaatu fa yuqsimaani billah ñoom it ñu waat ci yàlla la shahaadatuna axaqu min shahaadatihima suñu seede day moo gën a yey ci seen seede ñoom wa mactadaynaa ñun day nekkuñu ñoo xam ne dañuy jéggi dayoo inna idan la min alzalimin kon de ñun daañ bokk ci ñi nga xam ne dañoo tooñ zalika adna lii day moo gën a yey di gën a jege an yaatu bi shahadati ala wajhiha ci ñuy dikk ci seede ca la nga xam ne mooy jubluwaayam ay nam gën a jube gën caa dëggee mu ci kanamam aw yaxaafu wala boog ñuy ragal an turadda imaanun baada imaanihim ci ñuy delloo ay waat gannaaw ba ñoom ñu waatee ba pare wattaqullah ragal leen yàlla wasma'u ca ngeen déggi ndigali yàlla wallahu la yahdi alqawma alfasiqin ca yàlla day du jubal xeet boo xam ne nii xeet bu génn topp la mi ngi noonu téléphone Aliou Badara est-ce que nekkul dina la woo kër ba xam nga kon mbokk suñu boroom mi ngi ñuy wax sànq waa ji nekkoon ci tukki dajanteeg ñaari nit wax leen ay dénkaane yu mu bàyyi ca kër ga ñaar ñooñu bi ñu dellusee daa ji ne ah diw kat nee nañu nangama ci nangama ci nangam su dee ne lu jiitu loolu waa jooju day am na mbokkam yu ko jege mbokkam yoo xam ne ñoo ko jege te xamoon ne ñoom kat dénkaane waa ji lii la bokkul ak li ñuy wax su boobaa ñoom am nañ droit daal di jóg daal di ne hey seen wax ji ngeen wax gëmuñu ko ñun diw nangam ak nangam la ñu dénkoon loolee da ngay gis ca bu boobaa attekat ba day ànd ak mbokk yi nga xam ne ni ñoo sus ci moom suñu borom nag ne lii day def nañ ko ngir benn ñoom ña nga xam ne ñoo jëkkoon taxaw di seede ca ñu waat ca yàlla subhanahu wa taala tax ca ñu waat ci turu yàlla daañ fexe ba la ñuy wax nekk dëgg wala boog suñu yégee ne man kat lii ma nar a seede bu dul dëgg it mbokki waa ji mën nañoo jóg seede leneen su boobaa da ngay gis ne dana tax ñu indi seede ga ca nam tëdde mbokk lii lépp ay jàngale la ci jàngale borom bi rawatina lu jëm ci wàllu alal suñu borom da ko détaillé ay détails nam ndax na nga xam ne noonu la mën a juri ay fitna looloo tax boo delloo suratul baqara hatta waa ji nga xam ne moo moom alal ji defal boppam ay dénkaane suñu borom nee na ña nga xam ne ñooy ay mbokkam bu ñu xoolee mbir ma gis ci loo xam ne lu jéng la lu dëppoowul ak sharia la buñ ko jubbantewaatee teg ko ci sharia ñi mel noonee amuñu benn bakkaar yàlla subhanahu wa taala dana leen jéggal ci loolu loolu mbokk mooy dénkaane bi ñu yàlla jalla wa ala dénk ci sunu wàllu testament falilahi alhamdu kenn ci suñu jàngkat yi ñëw na kon incha allah mu jël jëlal ñu bind bi ci topp yow ma yajmau allahu rusul
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين barakallahu fiik suñu boroom mu ni yawma yajma'u allahu rusul fàttalil bis bi yàllay dajale yonent yépp fa yaquulu maaza ujibtum mu ne ma yéen lan lañu leen tontu ba ngeen wootee qaalu laa ilma lana ñu ne ñun day xam-xam ñii lu ñu tey innaka anta allaamul xuyub yàlla yow dong yaay ki nga xam ne yaa xam léppi kumpa is qaala allahu ya isa bnu maryam is qaala allahu ya isa bna maryam fàttalikul ba borom bi di wax ay isa uzkur nicmati alayk fàttalikul sama xéewal ci yow wa ala walidatik ak xéewal ya ma def ca sa yaay ja di maryam is ayyattuka bi ruuxil qudus bi ma lay dooleele ruux gu sell ga muy jibril tukallimu naasa fi lmahdi wa këhla ngay wax ak nit ñi ca sa berso di wax ak nit ñi ba nga nekkee waxambaane mooy nekk am ponkal wa is allamtuka alkitaaba walxikma bi ma lay jàngal la nga xam ne mooy téere lu bari ci mufassiruna yi ne alkitaabata ay nga mën a bind walxikma ma jàngal la sunna wa tawraata wal injil jàngal la tawraat ak injil wa is taxluqu min atin fàttalikul ba ngay ñëw di bind ay di dessin ca ban ba ka hëy ati tayri lu mel ne misaalu picc bi isni ci sama ndigal fa tanfuxu fiiha nga ëf ca ban boobee fa takunu tayran bi isni mu wëlbati ku nekk picc ci sama ndigal wa tubri'u al akmaha wal abrasa bi isni ngay nekk di a wéral koo xam ne dafa juddoo silmaxa ak koo xam ne dafa dem ba gaana ba dagg wa is tax tuxrijul mawta bi izni ak ba ngay dem di génnee la nga xam ne mooy néew yëppaatu woon ñu jóg ci sama ndigal wa is kafaftu bani israil ank ak ba may fekk bani israil ci yow is jitahum bil bayinaat ba nga leen di dikkal ci layu leer fa qaala allazina kafaru minhum mu wax ñi nga xam ne dañuy weddi ci ñoom in haada illa sixru mubin lii de du dara lu dul njabar gu leer rek mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu boroom jalla wa ala moom temps tënku ko li muy li fi xewoon ca milliard d'années ak liy na la xew yépp yem ci moom mu ne yowmal qiyaama dana dajale yonent yi ca la shakka ne dana dajale seeni xeet ñoom ñëpp su ko defee mu woo yonent yi laaj leen waaw yéen ñii ma leen yónni woon lu ñu leen tontu ca loolu tiitaange la goo xam ni la ci ëpp ma ngay dellu ca ña nga xamee ni nii ñoom lañ yëndi woon ndax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ñoom it dana leen laaj maada ajabtumul mursalin lu ngeen wuy ña nga xam ne ñoo leen doon woo su ko defee loolu yonent yépp dañuy ànd ne yàlla ñun de xamuñu dara lu dul la nga xamee ni nii ah xamuñu dara lu dul ni yow rek yaay ci xam kumpa am ñu jàppe ne tiitaanga bu rëy ba moo tax am ñu jàpp ne déet ñoom liñ doon seede mooy ci zahir am na ñenn ñu leen gëmoon mais li nekk ci biir xol ya yàlla ko xam ak ñu ko jàppe it ne ñun kat ba ñuy fay nekk xam nañu ne am na ñoo xam ne toppoon nañu bañ fa jógee nag la xew suñu gannaaw xamuñu ko loole da ngay gis ala kulli xaal delloo nañu xam-xam bi yàlla mi nga xam ne moom rek xam kumpa ca képp koo dem ci moom mu xamal la kumpa yaa ngi koy jël di ko teg place yàlla suñu borom woo kenn ci ñoom nga xam ni ci ñi gën a ñi ñi gën a bokkaaleeg yàlla ci la bokk rawatina mu mujjoon ci yonent yi avant suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi woote ne gëm nañu ko topp ko mat nañ junni yoon yonent yi nga xam ne ñoo jiitu woon muy la nga xam ne nii mooy les chrétiens boo xam ngeen ba jamono ji ñuy dund chrétiens yi ñoo ëpp jurit ñi mi nga noonu loolu kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala woo isa ibnu mariam na ko waaw yow isa ibnu mariam kaay fàttali ko xéewal yi ma la defaloon ca ba ca gën a màgg mooy def na ko yonent defal ko sa way jur ay may ko way jur woo xam ne siddiqa la ca loolu it bokk na ci xiiwalu doom yàlla tànnal ko way jur wu baax i nga noonu loolu la woykat du arab ba doon wax ba mu woo njabootam nga na ko na leen waaw lu ngeen xam ci man ne na ko yaay bàyyi bu baax yaay def lii def lii def lii mun a xam leen ne xiiwal gi ma leen jëkk a defal ci àdduna mooy tànnal naa leen yaay ju baax gis ngeen su ko defee kon ku nekk rawatina yéen ndaw ñi di góorgóorlu bañ a jiital taaru jigéen ñi seeni maquillage ak seeni nangam waaye di góorgóorlu am yaay ju baax ju ngeen jagleel seeni doom wallahi léeg-léeg ma romb ci mbedd mi xale bu jigéen bu sol jiin bu na faat sol bëdeem bot doomam mën a cay doom ji de il est mal parti ah waaw koo xam ne da ngaa judd fekk si ay mil nii ah ñu ngi noonu bokk da ngay gis loolu lu day waar la amma wallahi yàlla wërsëgal la yaay joo xam ne xamul lu dul diine xamul lu dul topp ndigalu jëkkëram xamul lu dul fegu loolu xiiwal gu rëy rëy la fàttalikul xiiwal ga ma la defaloon defal ko sa way jur waaye ay isa fàttalikul bi nga xamee ne yaa ngi judd ma boole la ak ruuxul qudus bis bu nga juddoo nga commencé di wax ay jibril di ko jàppale muy wax ci xam ngeen mbokk doomu aadama jinne dana ko dugg léegi mu nekk di lakk-lakk yoo xam ne nii moom ak maamam sa xamuñu di wax wax yox yu doy waar buñ ko dalalee loolu mu fàttali yi sann Maryam tey la juddu yàlla boole ko Jibril mu jàkkaarloog labbe yi nga xam ne ñoo jiite woon yahudi discours lin discours yoo xam ne soo demee suratu Maryam fekk ko fa soo demee fekk suratu al Imran ba ma lay jàppale ci ruuxul qudus gannaaw bi ba nga demee ba nekk këhl këhl arab dana ko wax ki am fanweeri at am na ñu dene ba ba quarante ans am ñu ko yóbbu sax ba ne cinquante ans entre trente cinquante ans soo passé cinquante nag yaa ngi jëm di nekk cheikh loolu kon ñu gis ne bi nga demee ba nekk mag nga ma yónni la aussi nga nekk di wax ak mbooloo mi loolu di xéewal fàttalikul isa bi ma lay may nga mën di bind di mën a bind tawraat di mën a bind yépp ca kenn jàngalu la ko fàttalikul bi nga xamee ne ni wàcc naa ci yow xam-xam wàcc ci yow nga mën a comprendre tawraat ma may la injil fàttalikul bi ma la joxee kàttan ngay dem ci ban bi mbooloo mépp teew nga ñëw dessin benn picc soo dessin picc bi ba pare ëf ko picc bi na furr naaw loolu muy wañe ne kii ko yónni mooy borom bi yàlla mi nga xam ne moom mooy rey di dekkal xam ngeen avant picc moomu Muusa alayhi salaam aw yat la daan yor bu ko sànnee yat bi nekk jaan ko jàppaatee mu nekkaat aw yat Isaa it day ñëw dessin rek ëf mu nekk picc looloo tax ba mbokk julit su la yàlla nattoo nga nekk dessinateur nga la waay moytul di dessin lu am roox yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñi nga xam ne dañuy bind li am roox yowmal qiyaama yàlla da leen di dajale ne leen waaw yii lii de yéen a ko bindoon léegi nag dekkal leen ko def leen ci roox léegi li nga doon def leen ci roox léegi ca loolu la ca gën a grave nag mooy li nga xam ne dafa am jëmm comme li ngeen di gis fii ci tailleur yi ay nit ñu ñu defar ba mu taxaw nga xam ni boo moytuwul rek romb leen sax da nga leen nuyu am déet mi ngi noonu la chaque ba nga da nga leen di nuyu loolu ndax dara manqué wu lu dul ak ruux ñooñu yowmal qiyaama ku ci yàlla baalul dana la ñëw ne la yow day damaa bindoon def ci ruux yow it nga bind kaay li nga bindoon ngi ni kaay def ci ruux ndax da nga ko ci def laa doo ko ci def loolu kon jara moytu borom boobu subhanahu wa taala ne isa fàttalikul bi nga xamee ni nii may naa la nit ki nga xam ne demoon na juddoo gumba mi ngi noonu juddoo gumba nga xam ne ay bëtam ñoo yàqu lu ci nit man dara mbokk ophtalmologue yi li ñu man mooy réparer bët bu feebar ñu koy réparer bal dana yeggu étape boo xam ne nii ci walla ay glaucome ak yooyu dañ naan c'est fini kii moom France ak Angleterre ci yem kii moom bul sonn kii kenn mënatu ci dara amma Isa ibnu Maryam dalay raay rek nga daal di xefet gis lu tax yeneen ci yàlla la woon doonte ne lu mel noonu keroog xare Uhud gis nañu ni kii di Abi Qatada al-Ansari dem na benn yéeféer tëgg ko benn xeej bët bi ubbeeku ginn lang ci lex bi nga noonu loolee mu ñëw ci kanamu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi dafa jël bët bi ne bisimilah rek delloo ko bët bi ne xefeet mel nam meloon gis ngeen loole mi ngi noonu ala kulli xaal ñoom ay yenent yàlla lañu fàttalikul bi ngay def loolu gannaaw ba ay isa fàttalikul bi ngay dem ànd ak mbooloo mi ci nit ku dee woon kenn xamul nga woo ko mu bëtt bàmmeel bi jóg taxaw te loolu lépp isa nu Maryam def na ko mi ngi noonu loolu ay fàttalikul isa ba tey bi nga xamee ni nii bani israil bi yahud yu bon yi jóg nañu ngir faagaagal la rey la man yàlla ma musal la yëkkati la te loolu itamit muy wane ne woote ko bu yàlla mënul dëppoo ak la ëpp ci bànnee ko bakkanu doomu aadama yi looloo tax mënoo ko gis nga maa la musal bu dul woon looloo dañ lay rey te bani israil kenn xamul ñaata yonent lañu rey comme nañ ko jàngi semaine bii rek kullama jaahum rasulun bima la tahwa anfusukum mi ngi noonu lenn la kazabtum la ca des taqtulun mbokk lii la suñu borom fàttali isa isa ngi ne ngàmm toog di déglu borom bi rek léegi nag borom bi subhanahu wa taala ni lii lépp bi nga ko dajalee ba def ko amul lenn lu la bani israil tontu lu dul kii daal njabar gu leer rek la looloo tax mbokk ngëm yàlla xiiwal la yàlla koy def ci xol bu ko neex yàlla na yàlla def ko suñu xol waaye xam nga ne ni lii képp ku ko fekkee ba pare mun na la man mii def lii kat yàlla ma yónni wuroo ca sikk sàkka waaye gis nga la nga xam ne moom lañ ca tontu loolu moo taxit suñu yonente alayhi salaatu wasalaam bi indi woon kawteefu kawteef yi te muy alquranul karim loolee da ngay gis ne yéeféer yi lañ tontu woon Isa tontu ko Nuux loolu lañ ko tontu te mooy lii du dara lu dul njabar gu biir mi ngi noonu chixaal yi
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقنا
barakallahu fiik suñu borom mu ne wa id awxaytu ila alxawaariyin fàttalikul ba may wax yu jëm ca sa jege ñaale ya alxawaari mooy ñi sës ci yow comme ni ñuy tuddee saxaaba yi susoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkul ak mbooloo mi nga xam ne en général ñoo ko gëm ba may wax ñi sës ci yow tubaab bi di ko tudd ay apôtre an aminu bi bii wa bi rasuli ba ma wax yoo ci ñoom na leen gëm leen ma gëm sama yonent qaalu amanna washhad bi annana muslimun ñu ne ay yàlla ñun de gëm nañu seedeel na it jébbalu nañu ñeen la id qaala alxawaariyuun bi muy wax ñoo ñii susun ca isa yaa isa bnu maryam ay isa hal yastatiu rabbuk ndax sa borom moom mën na an yunazila alayna maidatan min alsama mu wàcceel ñu taabal ju ànd ak ñam mooy maida mooy bépp taabal bu ñuy gardir ak ak ñam bu jóge asamaan qaala taqullaha in kuntum muminin mu ne ragal leen yàlla su dee ne nekk ngeen ñu gëm qaalu nuridu an naakula minha ñu ne ay isa dañ caa bëgg a lekk wa tatma'inna qulubuna mu dal la nga xam ne mooy suñu xol wa na'lama an qad sadaqtana ñu xamit ne yow dëggal nga ñu wa nakuna alayha min ash-shahidin ñu bokk it ca loolee ca ña nga xam ne ñoo koy seede mi ngi noonu bokk suñu boroom nee na dafa wax yu ci xawaari yu ne yi wax yooyu borom xam-xam yi déggee ko li ñuy tuddee ilham ilham mooy loo xam ne yàlla da koy sànni sa xol doo mën a koo rejeté nga nangu ko ca loolu la yàlla defoon ak yaayu Muusa na ko sànni ko ci dex gi noonu la it yàlla def ne moo wax yoon yamb yi wa awxa rabbuka ila naxl doonte ne am nañu ne wax yoga yàlla nga ko jaari li ci isa mu wax ko jegeñaaleem yooyu yàlla lu mu leen wax gëm leen ma gëm sama yonent ñu ne ay yàlla ñun dey gëm nañu ci jébbalu nañu te mbokk al iman muy ngëm suñ ko jëlee rek boyal ko noonu day yóbbaale lislaam lislaam it day yóbbaale iman muy ngëm waaye iman ak lislaam fu mu àndee comme fii iman day dellu ca lu ñuy gëm ca xol islaam dellu lu ñuy jëf ci ay jëmm loolu tax ñu ne aw ñun day gëm nañu aman na te it wa annana muslimun suñu borom yàlla mu ne noonu lañ toogoon benn bis ñoo ñi jege isa daal di ñëw ci isa ibnu maryam ci wax joo xam ni wax yu doy waar la benn waxuñu ko ay yonente yàlla bi waaye la seen maam yi doon wax Muusa lañ ko wax yaa Muusa yaa Muusa amma sahabatul kiram kenn ci ñoom musul xalaat di wax ak yonente yàlla bi naan ko yaa Muhammad yaa rasulullah rek lañ koy wax mi ngi noonu ba tey xeetam lépp lu ñuy wax it doo gis borom xam-xam di wax naan qaala muhammad sallallahu alayhi wa sallam déedéet qaala rasulullah rek la ñuy wax kon mi ngi noonu ay isa ndax sa borom man na waxuñu suñu borom waaye ñu ne ndax sa borom man na doonte ne man na googee wax yéeféer la en tant que ku gëm ab yonent ba pare naan ndax yàlla man la ndax inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla mën na donte ne am na ñu koy firi mooy ndax danañu ko mën a defal ñu ngi mel ne rek waa jëga dajal na ko waaye sëñ bi doo ma mën a jox foofu 1000 francs wóor na la ni am na 1000 francs waaye nag ndax mën na la koo jox mooy problème bi léegi nag kon ndax suñu borom dana danañu mën a wàcceel loo xam ne nii taabal la joo xam ne daan ci mën a lekk lekk ba suur mu jóge kaw asamaan isa na leen ragal leen yàlla su dee gëm ngeen yàlla lu waral loolu mooy amul benn xeet bu mas a laaj kawtéef ab yonentam ba pare gëm kawtéef ba amul benn xeet bu mas a laaj kawtéef lu dul yàlla alak na leen suñu borom mu ne wa ma mana ana an nursila bil ayat illa an kazaba biha al awwalun wa atayna samuda naqata mubsiratan fa zalamu biha musuma en yónni benn kawtéef lu dul ñu jëkkoon weddi nañ ko preuve ba mooy waa samuud a ngi nii yonent yàlla saalax soo bëggee ñu gëm la montagne bi fexeel giléem génn ci saalax ñaan na yàlla giléem génn na ca montagne ba ñu dem rey giléem gi nekk lii njabar kese la kon ragal leen yàlla bu dee gëm ngeen ñu ne ko non Isa ñun di nga taxul waaye lu jiitu mooy ñun dañoo xiif mi ngi noonu dañoo xiif dañoo bëgg nga wàcc taabal yi ngiree ñu lekk ci muy benn dañoo bëgg it suñu xol doon xol bu dal dootuñu am benn sikk sàkk ci ne yow mii day rasulullah mi ngi noonu ñaareel ba it daañu xam ne yow dëggal nga ñu ci lépp loo xamee ne nii yaa ngi ñu koy wax ca itamit ñun daañ bokk ci ñi seede loolu kenn duñu ko nettali ñu wax ko doonte ne lay yi ñu lay yépp du lay yu leer gannaaw bañ gëmee ni kii rasulullah la waaye juif mooy juif muy bani israil kenn xamul seen dëgër bopp foo ko takk passé na fa mi ngi noonu cheikh ali
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني أنزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين bar- barakallahu fiik suñu borom mu ne qaala isa ibn maryam nii la isa doomi maryama ja waxe allahuma rabbana ay yàlla yow mi ñuy jaamu rabbana yow mi suñu borom anzil alayna maidatan min assama wàcceel ci ñun taabalu ñam bu jóge kaw asamaan takunu lana iidan li awwalina wa axirina mu nekk ci ñun ak feet ñeel ñi jiitu ci ñun ak ñi mujj ci ñun wa ayatan mink mu nekk kawteef bu bawoo ci yow warzuqna wa anta xayru raziqin e yàlla wërsëgal ñu yaa gën ci ñuy wërsëgalaate qaala allahu inni munazziluha alaykum suñu borom yàlla ne waaw maa ngi wàcce taabal ji ci yéen fa man yakfur baadu waaye képp ku weddi gannaaw loolu minkum ci yéen fa inni uazibuhu azaba ku mel noonu day dinaa ko mbugal mbugal moo xam ne laa uazibuhu ahadan min alalamin duma ko mbugal kenn ca la nga xam ne mooy mbindaa fan yi ma bind mi ngi noonu mbokk ñu ne léegi suñu borom mu ne isa bi ka gaa yi toppee topp ba sonal ko dafa yëkkati ay loxoom ne ay yàlla yow mii suñu borom doonte na ñooñu ko wër ñu ngi doon wax sa borom ay yàlla yow suñu borom te it lii mbokk la gën ci lu ñuy ubbee ñaan la allahuma rabbana mooy yaa ngi saxal wéetaayug yàlla ci moom rek la ñu war a jaam saxal moomeelug yàlla gum moom ay jaamam allahuma rabbana defal ma nangam defal ma nangam allahuma rabbana yàlla wàcceel ci ñun taabal ju jóge kaw asamaan loolee nekk feet ñeel ñun ñii ko fekke ak ñi ñëw suñu gannaaw ca yàlla wërsëgal ñu yaa gën ñuy wërsëgal mbokk benn wërsëgal ñu yaa gën ñuy wërsëgal la chaque ne yaayam ja di Mariama gis nañu ne avant Isa di juddu da daan nekk ca jàkka ja yàlla di ko fa fekkee ak fruit yoo xam ne kenn xamu ko ci réew mi di yàgg ngeen jàng looloo kon yàlla mi mën loolu kay mën na wàcc taabal bu jóge ko asamaan yàlla yaa gën ci ñuy wër sa galaate gannaaw ba it loolu mu tuddee ak it muy feet nañu xam ne diine yu jëkk yëpp amoon nañu ay feet naam amma léeg-léeg yàlla daan koo jaarale ci ay sabab bu dee ñun l'islam nag ñun ñaari feet lañu am ci at mi muy feetu tabaski giy tëj aj màkka feetu korite giy tëj weeru koor xanaa beneen bi mooy feetu semaine ca mooy aljuma mi ngi noonu amma ba isa bi mu waxee loolu suñu borom tontu ko ne ko isa maa ngi wàcce taabal ci waaye nag bi charte su ma wàccee taabal ji day képp ku ko fekkee ci gëmul danaa ko mbugal mbugal moo xam ni duma ko mbugal kenn ci samay jaam loolee mbokk bi mu amee mu fassiruuna yi am nañ foofu ixtilaaf ndax taabal ji wàcc na am wàccul am na ca ñenn ñoo xam ne dañu ne taabal ji nekkoon na di wàcc ñooñee ba ñu weddee yàlla soppi leen i mbaam xuux doonte ne tegtal ya ca nekk nekkul lu dëgër lool ba nga xamee ni bokk na lenn loo xam ne nii lu bari ci ñoom taamu nañ ko mooy bi ñuy waxee bi ko yàlla waxee lii la isa ñaan kon yàlla bu ko wàcc lu tax comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Makka mas a ñëw ci moom ne ko boo bëggee ñu gëm la tund wii di safa da nga ñu koy soppil or ko defee ñun waa Makka ñu riche kon dañ la gëm suñu borom ne ko boo bëggee ma def ko de waaye ku weddi danaa ko mbugal mbugal moo xam ne du ma ko mbugal kenn yonent bi alei salaam ne ko déedéet bàyyil ma woo leen ci ah sama kattan jëfali leen alhamdu yàlla mujj na waa Makka bu doon te ne dañoo nekkoon mille personnes la chaque ñi ci dee ci kéeféer matul téeméer ñi ci des ñëpp presque ci l'islam la ñu dee kon loolu moom la ñu bëri ci mufassirun yi notal mooy taabal ja yàlla mujj koo wàcc daf ngir bañ Isa moo ñaan yàlla ngir loolu ca xam ngeen tamit ni bokk na ci suñu borom nu muy allégué ay xeet la nga xam ne mooy ay kawtiif yoo xam ne xeet yi dañ koy ñaan comme nañ leen ko waxee woon sànq ci waa Samuud mi ngi noonu kon Cheikh Ali ñu yëggali
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بارك الله فيك suñu borom mu ne wa id qaala allahu ya isa bna maryam fàttalikul bi yàlla di wax ay isa doomi maryama a anta qulta linnaas ndax yow yaa waxoon nit ñi ittaxiduni wa umiya ilaya ilahayni min dunillah jàpp leen ma maag sama yaay ñaari yàlla yu bokkul ak yàlla qaala subhaanaka mu ne yàlla sell ñeel na la de maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bi xaq yeeyul ci man may wax loo xam ne nekkul ñel ma di àq in kuntu qultuhu faqad alimta su doon te ne wax naa ko yàlla xam nga ko taalamu maa fi nafsi wala alamu maa fi nafsi yàlla yaa xam ni nekk sama bakkan man xawma li ne sa bakkan innaka anta allaamul xuyub yàlla yow dong yaay aji xam mboole mi kumpa maa qultu lahum illa ma amartani bi waxuma leen woon lu dul lang ma digaloon an yabudu llaha rabbi wa rabb wa rabbakum ca mooy topp leen yàlla mii sama borom di seen borom wa kuntu alayhim shahidan maa dumtu fihim nekkoon naa aji seede ci ñoom fii ak maa ngi doon dund da nekk ak ñoom falamma tawaffaytani kunta anta raqib alayhim ba nga ma faatee yow yàlla yow yaa nekkoon nag di leen surveiller di leen fëglu wa anta ala kulli shay'in shahid ay yàlla lépp mbir yaay ka nga xam ne yaa koy seede in tuazibuhum fa innahum ibaduk soo leen mbugalee ñoom de say jaam lañu wa in taxfir lahum soo leen jéggalee nag fa innaka anta al azizul hakim yow yaay ki nga xam ne yaay ki not lépp sa kattan gi yaay ki xereñee jalla wa ala mbokk lii benn étape la ci loo xam ne ñun ñépp dañ ko fekk yowmal qiyaama yowmal qiyaama jugement ba fay am ñépp kay bokk seede ñu ngi noonu amul kenn koo xam ne dana fa tëx wala mu fay gumba wala muy am lenn lu koy rëcc te loolu sunu maam yi ba ñu ko daan jàng nekkoon na ci ñoom benn problème waaye mbokk da ngay xool tey benn mbir day am mi ngi mel ni fitne bii nar a am ci kanam tuuti mooy fitne yi coupe du monde nga xam ne di combien d'heure la doomi jullit yi nar a nekk na xam-xam maral ci kanamu télévision yi mbokk da ngay gis ne tey mën nga wax planète terre ñépp dañ koy toog di ko seetaanandoo benn heure am déet ñu ngi noonu loolee da ngay gis doomu aadama moo ko man defar ay mbir yoo xam ne nit ki mën ngaa nekk des dizaines de milliers de kilomètres ba pare di seetaan lu xew ci foo xam ne dañ koo tëj amma sunu borom bu dajalee ay jaamam yowmal qiyaama la nga xam ne gis yi fa basurukal yowma hadid lépp ñooy gisante ñéppay déggante la fa xew ñépp a koy xamandoo gis ngeen waaw isa ndax yow yaa waxoon nit ñi ne jël leen ma maag sama yaay def leen ma ay yàlla gannaaw yàlla di question boo xam ne bu dul woon yowmal qiyaama isa day seey mi ngi noonu waaye loolu mbokk la ñuy jëkk a wax wallahi da ngay gis tey ji ñu bari yowmal qiyaama ci ay sëriñ yàlla dana leen woo ne leen waaw yéen ndax nit ñi liñ doon wax nangam ak ak nangam yéen leen ko wax loo te wallahi quatre-vingt-dix-neuf pour cent sunu sëriñ su baax si fi jaaroon di jàngale diine di woot nit ñi ci yàlla bañ fi jógee li ëpp ci mbooloo yi leen topp da ngay gis dañ leen a jël teg leen place yàlla sosal leen ay wax yoo xam ne wax yu jéggi dayoo la même bu doon te ne wax yooyu am na yuñ ca doon def par erreur yi yoo xam ne doomu aadama moo matadi mais nangu lu ñu leen erreur yooyu dañoo jàpp ne ñii ñoo yeneen te ñoo yem lu ñu wax rek noonu la di ko saxal mbokk loolu da ngay gis Isa ibn Maryama mucc ci yeneen ti yàlla Muhammad mucc ci loolu suñ caam suñ jóob suñ jeng mucc ñu ci loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ndax Isa yaa waxoon ne jàppale na ma ak sama yaay ñu def leen ma yàlla isa dana weddi fukki weddi dana jëkk a toog ne yàlla subhanak yàlla sell ñeel na la ca loolu rek doyoon ne weddi sell ñeel na la ca moo dina sax sellaay paase na manaan nañ ma jël man ñi sab jaam jële def di ma jaam ñaareel bi mu ne ko ay yàlla yellul ci man may wax loo xam ne du sama àq ca mbokk loolu du àqu kenn ci jaamu yàlla yi muy woote woo la nga xamee ne nii ak bokkaale la benn waay ñëw na ci yonent bi alayhi salaam ko cay bu soobee yàlla soob la day bu subaa danaa def nangam yonent bi na ko waaw ajaaltani lillahi niddan ndax danga may def dama booleeg yàlla deel wax bu soobee yàlla gannaaw ba nangam nangam waaye yàlla coow moom dong lay soob yellul may wax loo xam ne du sama àq ñetteel bi mu ne ko ay yàlla loolu de su ma ko waxoon xam nga ko te loolu rek ak weddi la man su ma ko waxoon xam nga ne xam nga ne xam nga ko de gis ngeen loolu muy benn boo ko na lu ko Isa wax ay yàlla yow de yaay ki xam li nekk sama bakkan amma li nekk sa bakkan yàlla man xawma ko mi ngi noonu yaa xam li nekk ci man xawma nekk ci yow kon lépp loo xam ne wax naa ko xam nga ko lu ma waxul moom xam nga ko loolu it muy wone ne kon question bi ko yàlla yi posé posé wu ko ko laaju ko ngir Isa waaye mi ngi koy laaj ci mille milliards de chrétiens la ñu doon xam lu mën a doon ñuy taxaw bi su penc di dégg li yàlla di wax ak Isa loolee mbokk wax ja ca ñoom la jëm mi ngi mel ne suñu borom bi muy wax wa isal mawudatu suilat bi ay zanbin qutilat nee na liir bi judd woon bàyyam suul ko yowmal qiyam yàlla dana ko dekkal ci kanamu ay waajuram ne ko waaw yow liir loo defoon ci bàkkaar bañ rey la yaa ngi dégg loolee boo ko xam nañ laaj bi jëmul ci liir bi ma nga jëm te ña ko suuloon am déet kon it laaj bi jëmul ci Isa ma nga jëm ci ña nga xam ne ñooy toog di déglu ay yàlla xam nga li nekk sama bopp man xawma li nekk sa sa ci sa bakkan yow yaay ki xam léppi kumpa gis nga yàlla ñii ma wër waxuma leen woon lu dul lan ma digaloon ma wax ko illa ma amartani bihi ca mbokk yonente yàlla ngoog yonente yàlla du wax ci bànneexu bakkanam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonente bi jottali rek moo ko war yàlla waxuma leen lu dul lan ma santan ma wax ko léegi nag yàlla man day la ma leen waxoon mooy jaamu leen yàlla mooy sama borom man mooy seen borom yow yàlla mooy mooy seen mooy seen borom yii nit yàlla ba muy dund ci ñoom day nekkoon naa di seede seeni jëf te Isa lim fi dund bariwul lu bari ci historien yi li ñu wax mi ngi faatu ci 33 ans faatoogul mi ngi yëkkatiku yàlla ko yëkkati fanweeri at ak ñett la amoon Isa nu Maryam fanweeri at ak ñett la amoon mi ngi noonu yàlla yëkkati ko ci kaw asamaan yi yàlla dana ko wàcce waat ci kaw suuf mu defaat fii la nga xamee ne nii ay at ay du ñi ay fan yoo xam ne nii dana nekk yu safaanoo ak suñuy fan almuhim mi ngi noonu ba may dund ak ñoom day maa doon seede waaye yàlla ba nga ma fa jëlee yow yaa nekkoon di leen seede lañ sos sama gannaaw xawma ko te lu mel noonu yonent bi alayhi salaam dana ko wax yowmal qiyaama ñëw na ci xadis alxawdu mbokk fi ñuy yàlla attee yowm alqiyaama sunu borom dana fa may sunu yonente alayhi salaam benn lakk benn benn déeg boo xam ne doxaay dana nekk weer carré arab da ko daan wax six cent kilomètres guddaay bi six cent kilomètres yaatuwaay bi six cent kilomètres yàlla wàcceel ko fa ay naanukaay yoo xam ne dafa bari ba mel ne bari waay biddiw muy loo xam ne dafa weex tàll moo gën a weex lem ca moo da moo gën a weex meew ca moo daq lem jullit ñi bu ñu dekkee ñëw yowmal qiyaama ak mar ba leen yàlla di nattoo ca la ñuy jëkk a naan ku ca naan dootoo marati abadan abadan yal na yàlla boole ñu ci waaye yonent bi alayhi salaam nee na xeetam daañ ñëw di naan ba mujj malaaka yi ne cëpp baare benn mbooloo puus jëme sawara ma ne ay yàlla ummati ñi sama xeet lañ bokk ndax seen kalam yi mi ngi leer ak seen loxo yi ci niñ doon jàppee ñu ne ma waaw muhammad waaye xamoo li ñu sos sa gannaaw xamoo li ñu sos sa gannaaw ca mooy la nga fa indi woon yépp soppi na ko moo soppi nañu ko su ko defee loolu ma ne leen suxqan suxqan nañ ma sori nañ ma sori loolu it mbokk muy wane ne importance su topp yonent yàlla ca moytu ay bidaa même bu doon da nga doon jàpp di julli ca sa dund yépp nga saxal ko ci ay bidaa da ngay gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu mu leen wax jeexitalu njàpp mi ngi ci ñoom la chaque ne li ñu xam nit ki julli ca jàppul waaye ku jàpp moom la chaque da nga julli gis ngeen loolee kon mi ngi noonu am maa ko koo xam ne moom jaarul ci njàpp jaarul ci julli moom loolu moom beneen mbir la waa ngi dégg ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne isa dana ko wax ne yàlla ba muy dund maa doon seede ba nga ma faatee nag yow yaay ki nga xam ne yaa doon seede ci ñoom mu safaanoog ñun li ñu gëm ñun li ñu gëm mooy wali yu nim ma ne gannaawam moo raw nim ma ne kanamam am déet ba am na koy woy naan koo xam ne nii dafa jàpp ne gannaaw caam dana wuute kanamu caam kooko xamul caam xamul koy xamul yàlla xamul caam bokk mi ngi noonu mi ngi noonu dañuy jàpp ne waliyu yi bu ñu faatoo la ñuy gën a mën a nag saytu seen mbooloo ba yéen ñépp ngeen seede benn waay boo xam ne taxaw na nee na moom waliyu bi mu yaakaar toog na ab jamono gis ko mana ñun ñi day am na fitna bu ñu def ndax ay jamono ngi gisuma ko waaye ci suba ga la ma romb ci benn fusée na ma yaa gën a xam ne aw ma jot aw ma jot aw ma jot di di ndax ñu ngi wër àdduna bi rek le problème bi mbokk loolu loolu ñu ngi noonu Sénégal gi lañ koy waxee ci ki ko wax du Bilal Thiam mais nga xam ne ci mbedd mi la nekk kilifa gu mag mbooloo mu rëy topp ko donc nit ñi li ñu gëm moo di ne ne sëñ bi moom daa làqu rek daa wàccub liggéey daa làqoog daa téeméeri terme am nañ ko waaye wallahi daa dee de daa dee ñu gas ko suul ko yowmal qiyaama dong lay dékk lu isa ibn Maryam amul yàlla du ko may kenn mi ngi noonu yërinti yàlla ba it ba mu faatoo ñu dugal ko ci bàmmeelam wallahi xamul lu xew gannaawoo xamul lu xew gannaawoo bu amoon problème bu ñuy réglé doon na ñëw réglé keroog bi Ali ibn Abi Talib di jaafanteeg yaay Aïcha kii rakkam la moo ko yar moo ko nekk ak moom ba mu faatu ci kanamam kii soxnaam la moo ko jël jànq mu faatu ci biir néegam ñu am problème xeex ba ay téeméeri ci ay saxaaba deete yonent bi ñëwul régler problème boobu sëñ Caam moom ñëwaat di kenn xamul di régler seeni mbir loolu ay wax la rek mais dañuy wax rek lu leen neex ala kulli xaal Isa nee na yàlla man daal ba muy dund maa doon seeda ba nga ma faatee nag yow yaa xamoon lu ñu nekkee te it ngeen gëm ne inna allaha kaana aleykum raqiba loolu la jullit war a gëm lépp loo nekk sa biir kër lépp loo nekk ca marché loo nekk ci société ak bitim réew inna allaha kaana aleykum raqiba amul lenn loo xam ne lu toll ni misqala zarra looy wax di ko jëf di ko comporté woo lu dul yàlla ngi saytu di la seetaan mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni ah isa nee na ko ah yàlla ñi de say jaam lañu soo leen mbugalee say jaam lañu loolee moom sama yoon niwu ci man daal sama jaan wàcc na soo leen bëggalee say jaam lañu boo leen jéggalee it xamal ne jéggaloo leen ci ñàkk pexe waaye da nga leen jéggal ci kattan te doomu aadama dana wax nit ke jéggal naa la baal naa la fekk daa ñàkk pexe rek waaye suñu borom yàlla mu ne soo leen baalee it fa innaka antal azizul hakim yow yaay ki nga xam ne yaa not sa kattan yaay ki nga xam ne yaay xereñe discours bi la Isa a wax daal di nag toog di dellu gannaaw léegi nag ñu jeexal suñu borom lan la tontu ci loolu naam
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير جزاك الله خيرا قال الله نيل وخي الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم lii de mooy bis bi nga xam ne dana jëriñ ña dëggu woon seen dëggu ga lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar dana leen fa ñeel àjjana yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex xaalidina fiha abada ñu sax ca àjjana joojee ba faw radiyallahu anhum wa radu anhu daañ yàlla dana gërëm ci ñoom ñoom it ñu gërëm ñeel yàlla wa zalika al fawzu al azim lii de mooy texe bi gën a mag lillahi mulku samawati wal ard ñeel na yàlla moomeelu ko asamaan yi ak suuf wa ma fihin ak lépp lu nekk ci biir ci seen biir wa huwa ala kulli shay'in qadir ca mooy ki am kàttan ci lu mu mën a doon jalla wa ala mbokk gis nañu suñu boroom bi mu waxee isa discours bi yépp lan la tontu tey mooy bis boo xam ne ñi dëggu woon day seen dëgg dana leen jëriñ ca mbokk ñi dëggu woon mooy ñi saxaloon laa ilaha illa allah mushrik bokkaalekat mënul nekk ku dëgg fen wi gën a rëy bu doomu aadama yi fen ci kaw suuf mooy utal yàlla moroom doonte ne dëgg googu it dafay doon loo xam ne jëf yi da cay bokk moo tax suñu boroom ba mu ñuy wax laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib def nañu ne ni la nga xam ne mooy dëggu mooy ngëm goo xam ne ngëm gu sell la booleeg di julli booleeg di joxe azaka booleeg di ànd di muñ sunu borom mu ne ulaika lazina sadaqu ñii ñoo ñu dëgg kon Isa bu waxee loolu suñu borom dana xool ci mboolam chrétien ya képp koo xam ne amoon nga tawxiid wéetaloon nga yàlla dëggaloon nga la nga xam ne mooy sa jébbalu yàlla comme na ko apôtre yi waxe muy hawaari yu ne yi su boobaa suñu borom mu ne loolu dana leen jëriñ amma képp koo xam ne nekkoon nga di ca bokkaale képp koo xam ne sosoon nga beneen façon diine bu dul la Isa indi woon loolu la chakkan du la jëriñ bu dee ñu dëggu nag àjjana moo leen di ñeel suñu borom nee na bu ñu fa duggee lañ fay sax ba faw yàlla subhanahu wa taala gërëm leen te loolu bokk ni xéewal yi gën a rëy ci àjjana suñu borom dana bàyyi waa àjjana xéewlu ba ci biir xéewal ya mu laaj leen ndax waa àjjana gërëm ngeen ñu ne ay yàlla nu ñuy def ba duñu gërëm jox nga ñu loo xam ne nii suñuy xel musu ko xalaat ca àjjanaa ngi noonu yonent bi nee na bët musu koo gis nopp musu koo dégg doomu aadama musu ko imaginer suñu xel musul xalaat àjjana moom dem gis rek la yàlla na yàlla boole ñu ci ah yàlla lu ñuy def bu duñu gërëm suñu borom ne bis na ki tey day danaa leen dolli ci ne gërëm naa leen lu leen neex def leen lu leen neex wax leen dootuma leen mere ba faw gaa yi looloo daq àjjana gis ngeen loolu radiallahu anhu wa radu anhu borom bi nag daa di ne texe bi gën a rëy bu nit di faggu mooy fexe ba faggu texe bi mi ngi noonu bu nit ñi fexe ci milliards yeeg fex ca siiw ga ak fex ca lu nekk naam xamal ne day lay texe dëgg-dëgg mooy fexe ba tabbi aljanna gannaaw ba nag borom bi subhanahu wa taala ne mi ngi noonu mboole mi nekk ci kaw asamaan ak suuf ay jaam lañu benn boor lañu am muy yàlla subhanahu wa taala te yàlla moomu mooy ki am kàttan ci lu nekk yàlla mi am kàttan ci lu nekk yàlla nañu boole ci jaamam yi ko gëm bañ koo bokkaale jaamam yi ko jébbalul te bañ a doon ñuy génn ak toppam yàlla nañu boole ci ñay texe ci àjjana yi gën a kawe ñu mu gërëm leen ñu gërëm ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal ci ne ndax loole nga xam ne dañuy sujjuut naan yàlla nangul ma ni nga nangule woon daawuda alayhi salatu wasalaam loole dañuy gis ne yonent yàlla daawuda yàlla subhanahu wa taala da ko nattu woon nattu boo xam ne ay nit ñëw nañ di atte woo ci moom daawuda atte leen ci waxu kenn ci ñoom bi kenn ki waxee rek mu atte dégluwul ki ci des wax loole doon loo xam ni gannaaw ba lay erreuram daa di rot daa di sujjuut loolu téere yépp presque dañ fay def place su sujjuut la waaye boo delluwaatoon ci lenn ci borom xam-xam yi dañ ne loolu de place su sujjuut rawatina yow bu dee da ngaa nekk ci biir julli loolu kenn du ko sujjuutal loolu borom bi subhanahu wa taala loolu la wax foofu ndax daf ne ah fa xarra raakian wa ana dafa doon kuy rukkoo di dellu ci borom bi amma nag loolee nga xam ne nii mooy ñaan gàncee ñaan gisuñu loo xam ne texte la bu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy jàngale ne ne ki sujjuut sujjuutu tilaawa na ñaan loolu la nga xamee ne daal mooy la ca gën a wér lu borom xam-xam yi di wax lépp lu yey ñu wax ko ci sujuutu julli mënees na ko wax ci sujuutu tilaawa ci tasbiix ci ñaan ci lu mu mën a doon ndax sujut la comme yeneen sujut yi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam ndax ci lislaam day wax cré ndax chrétien yëpp day dem safara non julit du ala kulli xaal julit du wax chrétien yëpp day dem safara mu ne waaw julit du wax ndax julit day dem safara ndax chrétien day dem safara waaw loolu dañ koy dañ koy ràññetle dañ koy ràññetle julitoo chrétien woo ci bokk yem ki ñëw ni ne chrétiens yi ndax chrétiens yëpp safara lañ jëm loolu dañu naan chrétiens yi weddi yeneen ci yàlla muhammad yëpp safara lañ jëm loolu ngay wax inna lazina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin fi naari jahannam loolu moom yàlla ko wax képp ko weddi yeneen ci yàlla muhammad ci chrétien safara nga jëm mu des nag chrétiens yi nga xam ne ñoom dégguñu woote ak yeneen ci yàlla muhammad su boobaa dañuy dellu ci lii ñu doon tafsir léegi ndax dañoo bokk ci chrétiens yi wéetal yàlla chrétiens yi ay tarix yu bëri bëri lañu croix bi am nañu bëri ci ñoom gëmuñu ne Isa dañ ko daaj ci croix donc dañoo bëri ay façon y a les anglicans les mormons les je ne sais pas bëri nañu képp nag koo xam ne yow gëmoon nga ni ne Isa jaamu yàlla kese la yàlla kenn la doon jaamoo yàlla ca diine Isa même bu ca njaxas amoon boo dee ci loolu àddina nga jëm fekk mosoo dégg l'islam amma ku ci mas a dégg lislaam mu yegsi ci yow su boobaa sa chrétien yàqu na boo dee ci kéeféer nga dee loolu it lañuy wax ndax jullit ñëpp àjjana lañ jëm naam dañ naan jullit yëpp àjjana lañ jëm wala chaq jullit yëpp àjjana lañ jëm lu dul ne du ñu tëm nag ne moom masamba àjjana la jëm kenn du tëb ne man àddina la jëm wala ma sàmb àddina la jëm am nga droit daal ne ñépp ñi gëm yonent yàlla muhammad ca bokkaale wuñu ak yàlla àddina lañ jëm loolu moom am nga droit wax ko waaye nag doo ca seppi kenn lii daal mooy mbir bi wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk bi waaw ñu mujj ci mbokk bi rek bismillah waaw
boo amee benn parent boo xamante dafa dëgg ndax boo amee benn parent boo xamante dafa dëgg benn parent parent boo xam ne dafa dëgg bu génn àdduna waaw nga jour an jour bu mu dëggee delloosee Mhm.
lan moo gën ci ay ñaan yoo xamante ne dañ koy jagleel waaw lu jiitu am na mbokk bi muy laaj ndax jullit ñi àjjana lañ jëm wala àjjana la ñuy mujj la chaque ne loolu nekkul loo xam ne nii lu soree la bu dee wax ci umum bu dee dañuy wax rek ci mbooloo mi yépp dañ ñaan jullit ñëpp àjjana lañ jëm loolu la ñuy wax jullit ñëpp àjjana lañ jëm léegi nag ci biir mbooloo moomu dana ci am ñoo xam ne bala ñoo yegg àjjana daan jaar sawar yal na yàlla musul ñu ci waaw loolu moom mooy mbir bi waaye nag loolu xamuñu kan laag du kan li ñu xam daal de manière générale yéeféer yépp sawara lañ jëm de manière générale jurit ñépp àddina lañ jëm lii moom la jurit am droit di ko wax li ci des nag ci biir seen biir nag ku nekk mën nga am xaal boo xam ne bokkul ak xaalu moroomam mi ngi noonu amma sama bàyyi dafa faatu anniversaire bi muy ñëwaatee ndax mën naa dajale defal ko ay ñaan mbokk loolu bokkul ci lislaam islaam xamut loolu sa baay bi mu faatoo bés bu nekk da nga ko war a defal anniversaire bés bu nekk bul xëy bis boo ñaanulul sa baay loolu ngay defal sa baay bés bu nekk na nekk anniversaire ci yow fu sa xel demee sa baay foo jullee ba pare fu mu mën a doon say waajur yee jiitu nga la waay bu leen fàtte ci ay ñaan loo ma ñit ci léeg-léeg nga génn ay sarax jagleel leen ko loolee lu baax la bu seen bàmmeel jegee nga dem ziyaare leen ñaanal leen loolee lu baax la am maa nag dàkk bis bii lu judd woon daal di dem togg say laax ak say ceeb ak gaa yi dajeel dóor ba ne faaj loolu seen noos la ñuy def rek waaye du lislaam loo xam ne lu mu digle la mi ngi noonu yal na yàlla yërëm ñu yërëm suñuy way jur yërëm suñu way dawlu yépp wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain